tànn monsieur le ministre Ismaïla Madior Fall parce que dañu gis euh, xarañteem gis euh, bëgg li mu bëgg Tëngéej gis liggéey bi muy liggéey son excellence monsieur le président de la république euh, ñu xam ne nag kii buñ ko tànnee Tëngéej du des ginnaaw te aussi ñu gis bëgg gi mu bëgg artisanat te man en tant que président antenne départementale de la chambre des métiers dama koy accompagner ci euh, noble yi boobu mu bëgg muy defar dëkkam dëkk bi nga xam ne mooy sa euh, dëkk fii la juddoo fii lañ ko xamee fii lañ xamee ay waajuram kon kooku boo gisee ku mel noonu ki nga xam ne dafa bëgg a defal dëkkam lenn rek moom ngay def accompagner ko pour la ñu mën a accomplir sa sa mission. artisan yi nee nañu ñoom moo leen doy ma koy bëreel son excellence monsieur le président de la république ni ko am na doom bu nga xam ne am na rakk bu nga xam ne muy Ismaïla Madior Tëngéej moom la ñu jox bopp. Tëngéej moom la ñu bëgg donc président na ci bàyyi xelam xam ne waa jaa ngi nii. ndaxte dama ne woon damay bëgg nekk candidat politique mooy candidat wu APR nekk candidat wu Benno Bokk Yaakaar pour la mairie de la ville de Rufisque mais dama ne woon aussi dama bëgg nekk candidat wu citoyen rufisquois dama bëgg nekk candidat wu force vive yi su ma wax force vive mooy ñëpp ñoo nga xamante ni ñoo ŋànk comme euh, comme réew mi te acteur de la pêche ci lañu bok mo taxone dem na séti len euh, transporteurs yi ci lañu bok dem na fa séti len artisans yi ci la ñu bokk fi tay marché bi ci la bok dina fa dem amna yeneen secteur na fa dem mais artisans yi li tax mu am solo tey mooy euh, artisanat dafa nek lo xamne dafa am solo Sénégal parce que euh, tay mun nañ wax né 77 de la population active du Sénégal ay artisans donc artisans yi c'est un pilier de l'économie pour ne pas dire au poumon de l'économie donc soo un secteur bu euh, présidente bi Adja Sénégal Afrique ci monde bi leadership contribution au développement de l'artisanat aux côtés du président euh, Macky Sall su les prise de position secteur bi jox ko accompagner candidature bi ànd ci jàpp ci liggéey bi ñu pour conquérir ensemble la mairie de la ville de Rufisque loolu Soko ko amee da ngay sant yàlla sant ko te xam ne euh, yàlla incha allah dinañu may ndam ci. jafe-jafe yooyu comme ni ma ko waxee d'abord dafa am jafe-jafe yoo xamante ni damay interprète auprès du président de la république mhm. Macky Sall am na yoo xamante ni dinaa ko àggale ci président Macky Sall sans sama discours dama ko fàtte wax parce que am na ci yu bëri yoo xam ne dañu ci wax yoo xamante euh, pour saafara donc loolu incha allah dinaa ko àggale ci président am na loo xamante ni balaa may ñëw fii rek dama waxtaan ak ministre de l' artisanat moom sax yu bëri waxtaan nañ ci balaa may ñëw fii donc yu bari tamit dinañ ko àggale euh, ci euh, ministre artisanat am na nag yoo xamante ni man sax comme citoyen rufisquois déjà mun naa ko def par wax nañu ay problème mu éclairage wax nañu problème mu sécurité bi yooyu mun nañ ci déjà góorgóorlu am na nag yeneen yoo xamante ne wax naa leen ko suñu yàlla dimbali nag suñu yàlla dimbalee ba nga xamante nag li ñuy bébét li ñu bëgg am nañ ko nous ñu euh, à la tête de la mairie de la ville am on va le faire dans le cadre d'un partenariat entre artisans et la ville de Rufisque parce que suñu le président de la république Macky Sall moom une vision ci artisanat dafa faut transformer le secteur informel il bëgg euh, booster euh, l'artisanat pour mu un poumon économique mais vision nous au niveau état au niveau national àggagul au niveau des collectivités locales avons une vision le président am ci artisanat au niveau national Nous bëgg au niveau de la ville de Rufisque ba nga on va engager un partenariat pour développer l'artisanat. parce que développer l'artisanat, day tax développer un emploi pour les jeunes